tey jii nii ñu ngi ko seqal ay milliards alalu réew mi la ñu yor nag ko def ci élection yi pour sàccaat encore suñuy élection ñun nag suñu milliards suñu xaalis dafa lew li ñuy laaj patriote yi mooy au moins qu'on donne à la victoire de campagne du président Ousmane Sonko les moyens nécessaires pour pouvoir faire face à certaines charges ñaari charges rek laa leen di wax tey jii bu ñu dañuy soutenir par exemple les communes du Sénégal on a plus de 500 et quelques communes. Donc 500 et quelques communes, pour 1 million de la de commune on aura 500 et quelques millions à donner dans les structures les plus reculées du Sénégal souvent on peine à avoir des représentants cest année de fas nous faisons fu ñu représentant qu'on mette les moyens nécessaires pour nous assurer que ne du pas sàkk élection yi est tamit million millions et des millions de guerres là. c'est dernier appel vous nous maintenez. les enjeux de ces élections là sont bien trop importants pour que nous toog de cette ku ci nekk on vous demande de def cent le 14, Inch'Allah, avec la volonté que vous avez montrée au Sénégal et à travers la diaspora Nous allons tout du tout may xaar nous milliard de quotidiens. et Inch'Allah, avec ces moyens là on va s'assurer de la transparence des élections et on fera de Ousmane Sonko le cinquième président de la République du Sénégal Je vous remercie, je vous remercie, le 14 une allah merci beaucoup. alaikum mbokki patriote Moi, mooy ñi au Sénégal comme ñi nekk au réew. xam yéen a ngi ci réew mi wala yéen a ngi biti réew am mbégte ñëw taxaw euh, seen kanam ngir biral leen euh, li nga xam ni euh, moom la ñu fas doxal ci ay fan yi ñu génn sénégalais yépp ci réew mi wala biti réew yëg nañ xew-xew bi nga xam ni moom lañ doon wàcc mu di la cérémonie d'investiture de monsieur Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko président 2024 ah, mu nekkoon lu ñu doon waaj amoon yéene def ko xew-xew boo xamante ni askanu Sénégal ñi fare ci réew mi ak ñi fare ci bitiw réew fas yéene ànd ak eh, ñi nga xam ne ñoo di les leaders de la coalition ngir jëmmal loolu mu naroon nekk xew-xew bu am solo mu nekkoon naroon nekk un événement populaire ndax comme niñ ko yàgg a waxee président Ousmane Sonko moo di candidat wu askan wi li ñu ci namoon mooy askan wi Euh, tabbal ko boppam def investiture bi investir ko moom en tant que candidat waaye nag yàlla dogalu loolu antu ci coobareem waaye itam ci taxawaayu euh, ñi nga xam ne ñooñu lañu ñu jàkkaar lool ndax yaakaar naa euh, biñ ko jàppee ba biral ko que ni le 30 bii woon samedi dañ ko naroon amal ci terrain pes ñu interdire ko ndax du lu ñu lu bees lu ñu tàmm di gis la que depuis ay weer lépp lu ñu nar a amal muy daje walla xew-xew ci réew mi euh, amal ko ci turu président Ousmane Sonko day nekk loo xamante ni dañ koy dakkal ndax yaakaar naa kenn dootul miim li nga xam ni moo di euh, jaay doole gi am ci réew mi waaye loolu du ñu tënk di ñu téye. bi ñu jógee ci loolu ñun ay républicain lañ euh, jàmm lañu bëgg jàmm la ñuy dox jàmm la yéene réew mi li ñu naroon terrain ak APES ñu xañ ko ñu ne nag du ñu bàyyi ndax suñu wareef la ñu tabb suñu candidat kom ni ko ñeneen ñëpp defee ci loolu ñu décidé woon que comme mënuñoo dem terrain ak APES dañuy dem fi nga xam ni moo di saalu Fun City ñu mën ko amal foofu dajale. maanaam euh, nit ñi ci ñi fa war a mën a teew ngir ñu mën a amal cérémonie bi waaye taxul itam ñi ñu jàkkaar lool seen xol mënta nangu loolu ba tax na ba ñuy wàcc pour nit ñi ñëw ñu dalal leen ñu tàmbali liggéey bi ci lañ fay yónnee ay takk der ñu ne nit ñi nañu génn salle bi ñu tëj salle bi looloo tax jotuñu ko amal foofu waaye taxul ñu banque suñu loxo ndax dafa am loo xamante ni niñ ko waxee dañ ko warloog moom askan wi da ko warloog moom moo tax ñu bëgg ñëw tey jëmmal ko pour sénégalais yépp gis ko moo xam yaa ngi ci réew mi wala biti réew pour wan leen ni ñoom am nañ seen kàttan waaye ñun tamit am nañ suñu dogu ak suñu pas-pas ci ni lépp lu ñu war a def mu jëm ci euh, le président Ousmane Sonko mii di candidat bi lu ñuy amal la ndax gis nañ taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ci dossier de candidature am waaye xarañte ay avocat xarañte ak ñi nga xam ne ñoom la sekkat di liggéey fexé nañ ba dossier de candidature am tey jii fi ñuy wax ak yeen mu ngi ci biir conseil constitutionnel mu nekk lu ñu war a saytu donc loolu moo ñu tax a daje fii tey xam ah, ñi nga xam ne ngi sekk coalition bi ñu ngi toog incha lu ñuy continuer la ñu leen di limal rek dëral leen li nga xam ne moom la ñu def pour ngeen xam ko moo di dinañ wax ci ki nga xam ne di candidat bi ndax day baax ñuy fàttali askanu Sénégal kan mooy président Ousmane Sonko taxawaayam ak yéeneem ci réew mi bu ñu ci jugee dina am benn euh, vidéo boo xamante ni dañ ciy ñëw ngir feeñalaat taxawaayam ak jaay jaaram donte ni bari na mënuñoo feeñal lépp waaye dina am lu luñ ci jukki te jox leen ko bu ñu jugee ci loolu dinañ biral kàddu yi nga xam ni mooy kàddu yi ko war a tabb en tant que candidat de la coalition dinañ ci ñëw ci wàllu wolof dinañ ci ñëw ci wàllu français dinañ ci ñëw tamit ci wàllu anglais ndax suñu mbokk yi fare biti réew te dégguñu nasaraan wala anglais la ñuy wax pour ñu mën ko dégg bu ñu paree ci loolu nag dinañ ko tëj ak li nga xam ni moo di message am euh, ak li nga xam ni moom la ñu fas yéene doxal ci fan yi di ñëw ndax naru ñoo banque suñuy loxo incha allah niñ ko yàgg a waxe candidature am demande sociale la te dinañ fexe suñu kéem kattan ba mu nekk loo dina antu ci carton borom bi suñu noppé nak dinañ wo kenn ku ci nek ci leader yi nga xamni ne fi coalition bi ñu jox leen raay gi nga xamni moy mandargal sen bokku ci coalition Sonko président 2024. donc euh, ni ñuy def rek moy wo ki nga xamni ni euh docteur Sall mom mi nga xamni ni nekk na jegeñaale ci président Ousmane Sonko ñu and. ci liggéey politique ci lu yaatu mu nekk nit koo xamante ni xam na ko mën na wax lu bari ci moom comme ni ko ñeneen ñu bari waxee waaye moom tànn gi ñu ko tànn dafa am lu muy jëmmal ci moom incha allah mu ñëw fii wax leen biral leen euh, bokk ak yéen euh, kàddu yi muy feeñal mu jëm ci président Ousmane Sonko. Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci daje bi. Euh, li ko waral nag mooy euh, dañu nek ci lu am solo lo xam ne ëllëgu Sénégal euh, mo ci nek muy lo xam ne ci histoire suñuy doom yi suñuy sët yi dinañu bëgg xam ban taxaway lañ ci am euh buñu waxé élection dañuy wax ki ñu wara tann tànn naka la war mel lan mo war nek jikom ngir mission bi ko fas denk mo mu mën ko taxaw kon day bax ñu dellu ci touti ci lolu ba ñuy ñëw nak ci nga xamné ne ñu fi taxa daje tey euh, jàpp naa né président de la république charge bi nga xamné mo nek ci ay mbagam nekul ci mbaggu ben citoyen même su fekké citoyen ñoo yem ndax liñ ko denk dafa rëy signature lu màgg la. lu mën ay ay changement mën na defar mën na yàq moo tax dañ ko war a saytu euh, saytu boobu nag mu ngi tegu ci ay jikko yoo xam ne daf ko war a làmboo jikko yi mën na ci site jub jubal mën na ci site xam-xam mën na ci site fit mën na ci citer. Euh, bëgg sa réew waaye nangoo jox sa bopp sa réew ak yeneen yeneen yeneen su ko defee bu ñu nattee loolu ñu xool naka lañ koy yéeme ci usman Sonko ba xam ndax moom mbaggam yi diis na pour mën a téye Sénégal wala déet te ñu teg ko ci kaw li ñu xam ci moom te yàlla tax tax ñuy wax lu jëm ci jub yaakaar naa Sénégal yi bu ñu doon def sondage tey di wax kat mooy usman Sonko ñu natt ko ci njubam. yaakaar naa kenn du werante même ñi nga xam ne d'accord ñu ak moom di ko waxee guddeeg bëcc sax d'accord nañu ki ku jub la bi mu lancé pendant ay at ci képp ku mës a gis jël naa dërëm bu ma moomul foo man di nekk wax ko génne ko moom ba léegi télé nañ pour génne ko xam nga su fekkee dem nañ ba nga xamante ni ñi seex ak ñi ànd ak ñi nga xam ne dañ ak moom dem bay fent ay mbir di ko teg ci deram ba justifié am nga batiku setal ko bu ñu amoon benn pexe lu mu tuuti tuuti ci loo xam ne dëgg la ci moom lu jubul xam nga ni kon waxuñu ko loolu rek doy na pour wane ne kii ku jub la te ñub solo bu rëy la am ci jiite réew ñub ci sa bopp yow par rapport ak loi yi nga xam ne mooy encadrer sa marche en tant que président de la République waaye jub également ci yebale ñëpp xam nga loolu bu ñu ko waxee tey nag xam naa sénégalais bu ne dina am njaqare ndax ñàkk a yemale gi ñu fësee ci Sénégal ginnaaw loolu xam-xam xam-xam lépp luy dox te war a baax xam-xam moo ko moo ko tënk rawati nag am réew nga xam ne comme ni ma ko waxee sànq benn décision boo ci mën di jël impact bi kenn xam fan la mën a yem moo tax ba xam-xam ci Ousmane Sonko yaakaar naa lu neex a comprendre la xaarul ba président pour bind ay livre ñett bind nako buñ jëlé bi jëm ci pétrole symboliser gi am gérer ressources yi nga Sénégal am nako mu jaar ci yoon fondamental la parce que loolu moy tax nga am ay ressources au-delà de conception mi ngay def ci Sénégal fan la war jaar jaar nga am ay ressources benn euh, bind na également ci décentralisation même c'est ko le auteur la ci di woné également lan suñu malgré 60 ans d'existence ñu ko né le ba nous ñu bind ci pour wane né amna ay yoon yo xamné buñ ko war génn ba aussi kenn ko porter la contradiction ci li nga xamné mom lañ aussi bind na libre solution di wane également naka lañu wara def ba Sénégal génn ci guddi gi mu nekk comme ni ma waxee sànq na su fekkoon dafa yem rek ci def ay proposition dañ naan ñëpp def nañ ko waaye li jafe mooy def ay proposition wane wu mooy yi ma soxla pour mën ko jëmmal loolu la def loolu mooy jëm ci xam-xam ma ndax Ousmane Sonko bëgg na Sénégal ah bëgg Sénégal mën naa weesu dem ba sa bakkan di xaj ci mbiri Sénégal ba ñu naan dina ci génn du ci génn ci loo xamante ni amoon na yenn sañ-sañ yoo xam ne bu ko defoon tay kenn du waxati comme ñeneen ñu def rek kon Ousmane Sonko bëgg réewam jaral na ko ba bakkanam des ci te wane na ko. ci njiit parce que di nga toll foo xamante ni say décision enjeu bi mu am soo amul fit ngir sa askan doo ko ma def ku ne xam ne ni Ousmane Sonko li mu daj depuis lors ba léegi ku amul woon fit dellu na ginnaaw yàgg na kon jàmbaar la alors lii yëpp nag su dajee. moo ne kon ñun ki ñu tax a toog fii au-delà de jëmmam muy Sénégal leer na ne attan na li nga xam ne moo lañ ko bëgg a dénk loolu moo tax d'ailleurs Sénégal yëpp riir jëme ci moom pour ne kii la ñu bëgg mu jiite ñu ñu bëgg leen koo xañ kon mbokk yi loolu yëpp nag soo gisee ci kaw Ousmane Sonko man li ma xam ci moom gis nga en en 2017 bi ñuy def campagne ñu dem Saint-Louis. Nous avons fait autour de entre 3h30 du matin et 4h du matin heure prière c'était à 5h30 6h une temps la ñu nelaw Ousmane Sonko dem ko amul def de wax ci jël bëgg de mu jaral la ak yeneen ak yeneen yi ma ci tudd léegi bi mooy gëm gum gëm ne lii jaamu yàlla la wax da koy bari di wax ngeen koy dégg te muy dëgg amul lu gën a foor def sa kattan sa xalaat sa lëpp pour que sa askan mën soppeeku jóge ci situation bu jafe dem situation bu tane loolu jaamu yàlla bu rëy la xam na ko gëm na ko ci loolu la nekk aussi kon mbokk yi soo ko wax dëgg yàlla suñu waxalee yàlla rek tax te par parloo taxul jëmm ji du moo tax li mu làmbootu mu am njariñ Sénégal loolu moo tax ñuy wax moo tax ñuy woo nit ñi leen xamal lañu gën a gëstu te bés bu tànn jotee nañu seet li ñuy tànn nit du lor boppam lor sa bopp mooy tànn jot au lieu nga seet sa diggante ak li nga xamante ni moo la jëmale kanam ay yeneen yu la détourné la ba nga jëf ba nga def leen loo xamante ni du sa njariñ moo ci nekk loolu gënul Ousmane Sonko daal wax dëgg yàlla moon nañu toog di wax ci moom lu bëree bëree bari damay joxe benn anecdote

sa xeet sa xol sa xol yëpp mu ngi ci affaire bi loolu moo leen humanisme waa ji donc c'est-à-dire que moom du koy ñëwee rek mbir ci boppam day xool entourage bi est-ce que li ñuy defal ni am na njëriñ lan mooy seen xalaat ci li ñuy def il se préoccupe de soo gisee jeunesse bi topp ko loolu ci la bokk nit la nit la loolu rek doy na nit la loolu rek doy na bëgg na Sénégal xam naa du ma guddal parce que am na ñenn ñu war a intervenir mais daal li ma mën a wax mooy ci lu gàtt Ousmane Sonko mbaax laa ko xamee te li may wax nii yàlla laa ko seedeel maa ngi leen di sant leen gërëm ñoo ngeen jëf waaw euh, jërëjëf euh, docteur Mohamed Sall euh, kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci président Ousmane Sonko mu nekk kàddu yu am solo ndax ñëw na pour xamal ñu ko ci ay baat yu gàtt mu di président Ousmane Sonko boo ko tuddee dinga tudd intégrité mooy njub di nga tudd xam-xam te mooy compétence dinga nga tudd patriotisme ndax mooy bëgg sa réew ba mu jaral la nga sacrifier lu bari ci sa dund tudd na itam courage fit gi mu am ci euh, liggéey gi muy liggéey waaye tëjee ko lii di ngëm mu nekk yu am solo muy développer ay valeur rawatina li mu feeñal ci anecdote bi di humanisme donc euh, ci loolu la mënoon jukki ak keneen ak keneen koo xamante ni yàgg nga sëkk ak moom ñii di ay ancien collègue ñii di ay nit yu mu sëkkal ci wàllu àdduna waaye ku ci nekk rek am nga loo mën a wax ci moom donc di ko remercier bu baax a baax ci ci ci kàddu yi donc kàddu yooyu euh, dañ ciy njëkk a woo ki nga xam ni mooy suñu frère euh, El Hadj Malick Ndiaye mu ñëw biral kàddu yooyu ci kàllaama wolof suñ ci noppee dinañ ko biral ci nasaraan ak anglais ngir àdduna bi yépp xam li nga xam ni moom lañuy ñuy euh, amal tey donc di woo El Malick ngir mu ñëw biral kàddu yooyu salaamaaleykum mbooloo mi mbégte mu rëy lañu am teew fii tey ngir becc leen kàddu yu néew ci lii nga xam ne ñi bokk coalition Sonko président ñoo ko dëxëñ ngir tabb kii di président Ousmane Sonko mu doon seen candidat waaye comme ñoom moomuñu ko ñoom rekk waaye mu doon tamit candidat askan wi comme ni ko euh, use nu waxee gis ngeen ne bi ñu annoncé datu le 30 bi ba léegi li ci jot a xew yépp euh, waaye ñëpp xam nañ ne président Ousmane Sonko niveau de résilience am ak résistance Nous daf ko mujj a wala wàll ñi nga xam ne moom ba tax na euh, lépp loo dinañ ko def pour ko dinañ ko soppi ba nga xam ne euh, faiblesse boobu day nous nekk force moo mbokk yi yéen ñi nga fi Sénégal waaye mbokk aji bëgg réew yi ñu leen di wax les patriotes ñun waa coalition Sonko président dañu am mbégte ak yëg-yëg bu mag ngir tabb kii di Ousmane Sonko mu doon candidat coalition Sonko président ci jongante yi ñu dëkk natt nañu bu baax nag dayo bi nga xam ne lii moom la am ak li muy màndargaal ci askanu Sénégal waaye tamit tegoo nañu ko ci suñuy mbagg wane ne kii nga xam ne mooy président Ousmane Sonko di panafricain ñépp xam nañ ni mu mel ci Afrique ndax dimension weesu na Sénégal mën naa ne weesu na Afrique te tey ku gis dimension bi dayoom moom fi mu toll ak candidature fi mu yegg ci àdduna bi xëy na kenn lañ ko ci mën a méngalee koo xam ne yeggoon na foofu mii Barack Obama mu nekk patriote convaincu maanaam aji bëgg réew bu mat sëkk waaye mu nekk ki nga xam ne mooy mandargaal Afrique gi nga xam ne dañ ko nalawal bu yàgg te Afrique googu yeewu fas yéenaa jël ëllëgam téye ko dox jëm ca kanam bokk ci continent yi ñu gën a naw yi gën a ñoŋ ci àdduna bi foo ko may bëgg a wax mooy le kandidaa Ousmane Sonko ñi ko gën a jege di ko wooyee PROS kon nag ñun ci fidélité honnêteté sincérité ak loyauté moo tax tey ñu jàpp ne xeex bii ñuy xeex ngir Sénégal doon senegaal gu jóg senegaal gu gën senegaal gu ñoŋ senegaal gu raw ay maasam doon na xeex boo xam ne mënu ci dellu ginnaaw benn yoon te mënuñu ci yox-yoxi a ah, xeex boobu nag suñu koy def suñu xel mënul ñàkk dem ci ñi nga xam ne seen bakkan dafa rot ci yoon wi ndax ba ñu ko tàmbalee ba léegi te ñoom Mariama saañaa ba fii ñu yegg si tey la ci rot ëpp na juróom benn fukki nit Ni ci événement mars 2021 ni ci événement juin ak euh, ak ak ak événement euh, juin 2022 ak événement juin 2023 a ah, ñooñu nak dañuy xalaat seen ay njaboot seeni wayjur seeni soxna seeni rak waaye di leen biral ne duñu ñu leen mës a fàtte te xeex boobu ñu doon xeex ba loolu fekk leen ci nañ gëm ne ñun dinañ ko wéyal ba am ci ndam ngir Sénégal doon Sénégalu dëgg ngir Sénégal doon Sénégal goo xam ne li ñëpp bokk ñëpp jot suñu xel mënul ñàkk dem ci lu ëpp junni nit yi nga xam ne dañ leen a nëbb jant bi ñu nekk ci kaso yi nga xam ne nguur gi moo leen fa dugal ci ak jaay doole waaye ci gëm gu ñu gëm seen réew gëm ko benn projet te ñooñu ñu mën cee lim kii nga xam ne moom la ñu tabb tey muy suñu candidat di président Ousmane Sonko ak mboolem ñi mu àndal ah wax fa dëgg yàlla nag li nga xam ne fas yéene nañ koo def mooy génne Sénégal ci guuta gi mu nekk waaye génne Sénégal ci loxo yi ko nank ruut ko ci suuf ji ngir bañ mu jëm kanam ñoo xam ne seen intérêt képp moo leen fi nekkal ba tax nañu tabb seen benn candidat boo xamante ne nii dañ cee bëgg jaar forcé wéy ngir di noot sénégalais yi ngir confisquer votu sénégalais yi maanaam ngir nangu bëgg-bëggu sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg a tànn kenn koo xam ne jàpp nañ ne bu ñëwee moom mooy delloowaat Sénégal maanaam li jot sa réew mooy tax nit ñi jotaat seen réew mooy tax nit ñi mën a jot ci li ñëpp bokk loolu nag euh, bu ñu koy def ba tax ñi tabb suñu candidat bi dañu koy la ci li nga constitution au Sénégal mi ndayi sart réew nga xamné mo ndax constitution bobu ci poñam biñuy wax 4 ak 29 manam article 4 ak article 29 euh, ak L 120 bu constitution bi ak L 121 bu code électoral bi mom nous wax naka la candidat té ñun ñu ci bi nga coalition bu ëmb mbotay gu ëmb ay politique ñoom ñoo koy tabb ngir mën a nekk président de la république ah waaye yamu ñu ci loolu parce que dañu jàpp ne président bi dafa war a nekk ku légitime maanaam dafa war a nekk koo xam ne nit ñi jox nañ ko bopp ba pare nangul ko moo tax ah ñu jàpp ne euh, euh, loolu di cérémonie d'investiture bi dañ ko war a def ci maanaam yamale waaye dañ ko war a def ci anam yoo xamante ne nii kooku dinañ xam ne kiy respecté état de droit la waaye ki respecté suñu ay institution la waaye tamit dina gis am gis-gis bu soree sori ngir suñu ëllëgu réew mbokk yi président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne parti bi mu bokk di Pastef ñi naan ex Pastef dañu ko investiroon balaa dara di xew te ba ñu koy investir maanaam ba ñu koy tànn mu doon suñu candidat moom képp moo nekkoon candidat keneen yëkkatiwul loxoom waaye yamuñu ci loolu ndax ngir bëgg mu nekk candidat boo xamante ni lépp dafay jaar yoon te mu nekk candidat boo xamante ne ni am na légitimité dañu wax kuréel gi nga xam ne moom mooy ARP di haute autorité de régulation du parti ku ñuy wax euh, monsieur Ngouda Mboup di constitutionnaliste dit ko ñu defal ñu benn investiture pour xamante suivre les textes du parti ah bi ñu ko defee consulter mbooleem responsable du parti yi la ñu ca doon xaar dañ cee gis lu ko ëpp ndax lu ëpp junni ak nous avons téeméer ak juróom benn responsable du parti bi ñëpp dañu ne d'accord nañu ngir président Ousmane Sonko doon mbër ci élection yii di ñëw di 2024 résultat yooyu nag nga xam ne am nañ ko mu koy woon lool lool suñu njort moo doon wane ne kii di président Ousmane Sonko wax dëgg yàlla lu koy teree nekk candidat yàlla sàkk ko ci mim réew ba ginnaaw ba ñu ko defee candidat waaye senegal yi defal ko seen bopp candidat dama bëggoon rekk wax ñaar fukk ak juróom-ñeent kuréeli politique yi nga xam ne ñoom ñoo décidé balaa dara xew ndax biir nañu ne ay fukki fukki kuréelu politique dinañ ñëw balaa yàgg dara ñoom ñoom ñoo xaatim lii wax ne tànn nañu kii di président Ousmane Sonko mu doon seen mbër ci jongante yi ñu dëjmal mi le 25 février 2024. ñu mën cee jiital kuréel gu ñuy wax mouvement pour une citoyenneté engagée àndu nawle bi nga xam ne. Euh, comme dañ fi am ay titre yu bees kii di Mamadou Lamine Diante di ex candidat moom moo ko jiite am na kuréel gu ñuy wax ànd sàmm sama réew ànd sama réew muy ANSAR ku ñuy wax Momar njaay moo ko jiite am na mouvement la renaissance républicaine di m 2 kii ñuy wax Ousseynou Faye moom moo ko jiite am na manko ci dëgg nga xam ne El Hadji Cissé moo ko jiite Amna APJS ñu koy wax alliance patriotique pour la justice et la solidarité nga xamné Ousmane Thiouf moko jité amna force citoyenne bi nga xamné la Lyon Maïmouna Bousso buso moko jiite Sénégal en tête Sénégal ci kanam euh, Mohamedou Moustapha Mbaba Girassi yoonu askan wi doyen Mbodj mouvement de la réforme pour le développement social du MRDS nga xam Mohamed Sall moo fi taxawoon léegi nii di wax bokk ci ñi ko euh, coalition le peuple l'homme du peuple nga xam ne moom mooy Dame Mbodj jiite ko Mom dafa muus nak mu tann coalition le peuple manam mom dafa jël askan wi yëpp ne moom moo daf ko def coalition moy coalition waaw dafa mbong lool macha allah ah Sénégal na fa di ah, maître Mamay joku am tamit cadre de réflexion pour un développement intégral nga xam ne professeur Amidou Dat moo ko jiite front national bu wuuteeg front national bi ñu xam nga Ali gay moo ko jiite RPS di maître Abdinar Ndiaye amna IFD e Union pour le fédéralisme et la démocratie bu professeur docteur Mohamed Tete Diédhiou amna na wi nga xamné ne Seydou Gissé Sall moko ko amna bi nga xamante ne nii mooy nga xamné ne nga xamné euh, Serigne Gueye moko ko parti conservateur du Sénégal bu euh, Aliou Cissé ñom grand mouvement citoyen nga xam ndiaga Njaga la mom tay sax mu ngi amal fofu ben événement bu am solo goñ ñu tew ci waye nim fa démé la amna euh farlu nga baralo jot se rew di un allié de première heure bu Serigne Bassirou Mbacké union des forces patriotiques bu doyé maître soxna kan waye ci biir dafa am aussi comme ex Pastef dafa am dafa am ay ex candidat té mën nañ ci lim ki di biram Souleye job bok ci candidat yi nga xamné singir dañoo renoncé ngir jàppale candidature président Ousmane Sonko am na gi comme guuy lañ koy woyé guuy Marie di ex candidat Amna na Abbas Fall di ex candidat benen ex candidat mom jarul lim wa El Malick ndia lañ koy wax mais ci ñi nga xamné signataire daf ci am ko xamné mënu ci won ñak bok muy le mandataire de l'année wala du siècle ñi koy wax tonto ay ñi moy ñi nga xamantene ni officiellement dañoo taxawal coalition bi di Sonko président 2024 désigné qui di président Ousmane Sonko mu nekk euh, seen dans ci jongante yii di ñëw Je ngeen président Ousmane Sonko comme ni ko euh, euh, article 1, bi waxé fi ci li nga xamné mom moy euh PV bi moy monsieur Ousmane Sonko mi nga xamné Mingi ngi judd ci 15 juillet 1974 ca Thiès nekk sénégalais haqan amul beneen nationalité waaye tamit euh, nekk ki nga xam ne mu ngi am ay àq ak yeleefam dara manqué wu ci moom la ñu déclaré officiellement candidat ci euh, élection yi ñu dëjmal ah lii nga xam ne mooy euh, bi xam ne tënk nañu ko mooy mandargaal investiture bi ah dinañ ko dëxëñ ci benn PV boo xamante ne ni candidat yépp a koy signé su ko defee dinañ ko tas ba ñëpp gis ko donc mbokk yi tey ci bés bi mujj ci atum 2023 31 décembre 2023 ah ci lañu ñëw ngir fësal leen lii nga xam ne mooy mandargaal ne président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu matalee lépp li ñu ko laaj incha allahu rabbi dina dem ci élection yi euh, te am nañu yaqin ne bu ci demee premier tour mu làbbali gaa yi sànni karawaas bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di leen jaajëfal bu baax baax jërë ngeen jëf merci. Euh, jërëjëf El Malick Ndiaye ci kàddu yi nga xam ni biral na ko mu di tex bi nga xam ni moo di tabb. qui dit le candidat euh, Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko président 2024 mu Wallou ci wàllu wolof bi dañuy dugg ci euh, français bi ànd ko ki nga euh, monsieur Moustapha Mbaba Girassi, jité parti bi nga xamni Sénégal en tête donc ñukay wo ngir mu def parti français Chers invités chers concitoyens, chers patriotes. Je commencerai déjà par euh, souhaiter au peuple sénégalais un nouvel an de 2024 tout simplement merveilleux. Une année faite de paix, faite de bonheur, une année pour le Sénégal, un Sénégal de prospérité. Une année pour un envol du Sénégal. Et plus jamais que le Sénégal ne vive ce qu'il a connu ces dernières années. Chers compatriotes, il s'agit surtout de parler de notre responsabilité en tant que citoyen. Le Sénégal a vécu, des moments extrêmement difficiles. Et nous sommes un peuple de croyants, musulmans comme chrétiens. Quand on pose la question du qui, le quoi, le comment, Généralement, nous avons les bonnes réponses. Mais le pourquoi des choses, souvent nous sommes déconnectés à cette grande réalité. Pourquoi Et il est important dans la marche d'une nation, de temps en temps, de s'arrêter et de se poser cette grande question du sens des choses. Et là, je me reconnecte à la grande question de la responsabilité, notre responsabilité. La vérité ne peut pas être une vérité exclusive. Elle ne peut être qu'essentielle. Ce n'est pas la vérité de l'opposition, la vérité de la majorité. La vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Et parlant de notre responsabilité, parlant des acteurs politiques que nous sommes, lorsqu'on considère la souffrance de la jeunesse, lorsqu'on considère la souffrance de ceux qui vivent dans les périphéries. Lorsqu'on considère la souffrance des étudiants, l'immigration, j'en passe, il est tout simplement important à partir de là de se poser cette grande question du pourquoi et surtout de notre responsabilité, le sens de la responsabilité. Chers compatriotes, ce qui se passe est tout simplement grave. Et quand on cesse de vivre cette empathie avec ceux qui souffrent, on cesse de donner du sens à la politique. L'injustice a pris des proportions démesurées. L'état de notre démocratie est arrivé à un niveau extrêmement bas en Afrique et dans le monde. Ce qui attend le Sénégal n'augure rien de bon. Chers compatriotes, en revenant encore une fois sur cette grande question de la responsabilité, nous sommes tous interpellés. L'heure est grave, comme on dit, et le contexte actuel appelle chacun de nous la responsabilité de chacun de nous, un engagement extrêmement profond, une solidarité, une mobilisation pour sauver la nation, sauver le pays. Toutes les choses sont appelées à disparaître sauf la face d'Allah. Et en tant que croyant, je dois donner simplement un sens à ma vie et à notre vie. J'aime bien quand je parle de politique. Je refuse d'enfermer la politique dans une sphère tout simplement de sachants, de politiciens, encore une fois, en la déconnectant de l'essentiel. Je suis, je viens d'un peuple de croyants. Nous devons accompagner ceux qui souffrent. Nous devons transformer notre nation. Nous devons aider les jeunes. Nous devons mettre en avant l'éducation. Nous devons mettre en avant la démocratie, ce qui a permis au Sénégal d'arriver là où il est en ce moment, ce qui a permis au Sénégal d'amener le président actuel à la tête de ce pays. Si nous devons perdre ce legs, chers compatriotes, cela appelle de nous, de chacun de nous, un sursaut, une remobilisation, et encore une fois que ce ne soit pas une affaire exclusive de l'opposition, encore moins d'une coalition. Lorsque Moussa a été appelé sur la vallée de Toua, c'était pour recevoir une mission extrêmement importante et qui ressemble étrangement à celle-là que nous tous nous assumons ou nous devons assumer. Quand Dieu lui dit, Moussa va vers Firaouna parce qu'il a outrepassé les limites. Je pense qu'il y a une étrange ressemblance entre cette mission-là qui nous est confiée, et particulièrement confiée à notre camarade le président Ousmane Sonko, parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui a outrepassé les limites. Mais la mission est la même. Ce n'était pas une mission pour aller prier, pour faire du chapelet. C'était une mission pour libérer un peuple qui souffrait où il n'y avait plus de démocratie, où il y avait de l'injustice. Je le rappelle parce que nous sommes un peuple croyant. Il faut bien comprendre et remettre les choses dans leur contexte, l'ancrage qu'il faut pour donner la puissance à ce que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas simplement d'élection pour élire un président, il s'agit encore une fois d'une nation, d'un peuple et de la transformation donc sociale de ce pays-là. La responsabilité est tellement importante, encore une fois, que nous devons, nous politiques et le peuple qui nous suit en ce moment, au moment de, cette investiture, considérer la gravité de la situation, considérer l'importance de l'engagement de chaque citoyen, de chaque citoyen, en faire une affaire personnelle, en faire une affaire de vie, un combat de vie. Et c'est pour cette raison que 29 formations politiques, libres dans leurs décisions, libres dans leur façon de penser, se sont retrouvées pour investir ce jour-ci quelqu'un de très spécial, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, parce que il est le symbole de la résistance. Le président Ousmane Sonko, parce qu'il est le président de la résilience. Et le symbole plutôt de la résilience. Le président Ousmane Sonko, parce que c'est le symbole du don de soi. Il a été comme euh, une IRM, une radiographie pour le peuple sénégalais pendant trois ans. Et durant ces trois années d'épreuve, nous avons pu voir, toucher, palper et constater en fait partout où nous sommes malades. La justice, l'exécutif, le Parlement, les régulateurs sociaux, une partie de la société civile. Aujourd'hui, nous savons d'où nous sommes malades et nous devons cela à Ousmane Sonko. Donc nous, membres de la coalition Sonko Président 2024, nous avons l'insigne honneur de porter aujourd'hui l'investiture de notre frère, de notre camarade, le président Ousmane Sonko. Si nous mesurons pleinement la portée de l'acte, il faut reconnaître que la charge symbolique est encore plus forte avec une portée hautement historique dépassant largement nos frontières. Il nous faut ainsi assumer l'exaltante et redoutable tâche d'investir un grand leader panafricain un digne fils du Sénégal, un grand patriote convaincu qui est symbole de l'éveil et du réveil et de l'envol du phénix africain. Nous avons nommé le président Ousmane Sonko. Nous voudrions le faire avec force, avec fidélité, honnêteté, sincérité, mais surtout par devoir de loyauté, dans le combat patriotique pour un Sénégal debout, meilleur et prospère. Nous le faisons aussi à la mémoire de tous les soldats du patriotisme, de la démocratie et des libertés, à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, tous ceux qui ont été privés de liberté parce qu'ils défendaient aussi des libertés. Nous en appelons au sens de la responsabilité de tous pour que leur sacrifice ne soit jamais oublié. À leurs familles, leurs parents, nous transmettons nos pensées nos prières et notre gratitude. La seule véritable reconnaissance que nous pouvons leur rendre, c'est de libérer le Sénégal du joug des fossoyeurs de la République. C'est de libérer le Sénégal du joug des autocrates, des autoritaires. La seule façon de leur être reconnaissant, c'est d'aller dans le sens d'une véritable mobilisation pour une construction d'un état de droit respectueux des libertés et garantissant une bonne gouvernance démocratique. Considérant que l'investiture officielle d'un candidat par une coalition de partis politiques constitue une démarche démocratique, et cela à la simple lecture des dispositions de la Constitution et du Code électoral, considérant qu'en vertu des articles 4 et 29 de la Constitution et L121 du Code électoral, l'investiture officielle d'un candidat à l'élection présidentielle par une coalition de partis politiques est une des options préalables et nécessaires pour être candidat à la présidence de la République. Considérant que le prix de la procédure d'investiture du président Ousmane Sonko tient au principe de légitimité et de l'égalité, et ce dans un contexte de discrédit et de déliquescence de l'état de droit et des institutions, voire plus largement de l'action publique, Considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko présente une spécificité qui découle d'une aspiration profonde du peuple sénégalais, mais aussi d'un véritable exercice de démocratie interne aux formations politiques et citoyennes initiatrices de cette cérémonie. Considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko est une marque attentive ou d'attention plutôt solennelle à tous les courants démocratiques représentative, participative, délibérative, directe, semi-directe et d'opinion, considérant que cette cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Sonko-Président, Ousmane Sonko, trouve son origine dans le processus d'investiture effectué par les Patriotes le 13 juillet 2023, qui avait réuni au total 1606 suffrages valablement exprimé par l'ensemble des votants au niveau des différentes coordinations départementales et de la diaspora, considérant que les résultats obtenus dépassent toutes les espérances, avec tous les votes en faveur du candidat Ousmane Sonko couronnant le succès inéluctable du leader des patriotes, considérant qu'il y a dès lors lieu de constater que la candidature du président Ousmane Sonko a reçu définitivement dans l'esprit et le cœur des Sénégalais et dans le paysage politique une adhésion commune et massive, considérant que 29 formations politiques présentes, et je commencerai par l'Union des forces patriotiques, l'UFP, de Maître Nakan. Parmi ces 29, le cadre de réflexion pour un développement intégral du professeur Ahmed Oudat et l'Alliance des patriotes pour la justice et la solidarité de Ousmane Tchouf. Le mouvement pour une citoyenneté engagée, Andou Naoulé de Momodou Lamine ex-candidat, Ande euh, Sam Réoumi, Ansar de Momar Ndiaye, le mouvement pour la renaissance, républicaine M2R de Ousseï Faye, Manko ci de LHCC, Force citoyenne de Maïmouna Bousso Sénégal en tête de Moustapha Girassi, ex-candidat Yonou Askanwi, Wi Mouvement de la réforme pour le développement social MRDS de Baradjouf, la coalition Le Peuple de mon cher ami Dame Sénégal Nafa de Maître Mamaye Djokou, le Front National de Ali Gay, le RPS de Maître Abdi Ndiaye, l'UFD, Union pour le fédéralisme et la démocratie de Dr Mohamed Tete Djedjou, Waref de Seydou Guissé le PAS, le Parti africain pour la souveraineté et la solidarité de Sering Gueye, le Parti conservateur du Sénégal, Alun Sissé, le grand mouvement citoyen GMC de Ndiagandiaï, Farlou de Baralo, Djotsareo de Bassirou Mbaké, Aïb Dafé, mandataire ex-candidat, Guy Marie Sagnan, ex-candidat, il y, a beaucoup de ex, hein? El ex-candidat, et Biram Souley, Diop, ex-ex-candidat. <laughs> Abbas donc ex-candidat. Ils ont tous, tous ces partis, toutes ces formations politiques, ont officiellement mis en place la coalition président, son président 2024. Et tous ces partis, tous ces partis désignent le président Ousmane Sonko comme candidat, non seulement pour la dite coalition, mais candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il déclare ses partis. Il déclare ses partis. Article 1. Monsieur Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civils et politiques, et officiellement investi et déclaré candidat de la coalition santé président 2024 à l'élection présidentielle du 27. Merci. Et l'article 2, la présente déclaration d'investiture sera consignée dans un PV signé par les membres de la coalition et publié partout où besoin sera. Mais, chers compatriotes, je ne peux pas terminer cette allocution sans m'adresser au Conseil constitutionnel. le Conseil constitutionnel est un pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà de la justice du peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être plus juste que le peuple. Le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir, la redoutable charge de rééquilibrer les pouvoirs le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de ramener la paix dans ce pays. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de redorer le blason de la justice. Je disais tout à l'heure, et la conscience historique, elle est importante. Il y a des juges qui ne sont plus. Il y a des présidents qui ne sont plus. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont plus de ce monde. Mais la conscience historique, c'est poser des actes qui pénètrent le futur. C'est poser des actes qui sont durables, qui sont éternels, qui transforment qui rendent heureux, même après votre vie. Le Conseil constitutionnel a ce redoutable devoir. Il n'a pas le droit de mettre une vérité exclusive, fut-elle celle d'un président en exercice, au-dessus de la vérité de tout un peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas fouler du pied les décisions de justice qui ont rétabli le droit. Et dans des conditions, dans un contexte extrêmement difficile, mais le droit a été dit. La justice est relevée au nom de la dignité du peuple. Redonner au peuple sénégalais toute sa dignité, toute sa fierté. La justice nous a permis de revivre ces moments. Et ce Conseil constitutionnel, nous attendons cela encore du Conseil constitutionnel que le droit soit dit. L'avenir dépend de ce Conseil constitutionnel. La paix dépend, dépend de la décision du Conseil constitutionnel. On ne peut menacer une institution judiciaire. Loin de moi, cette idée. Mais je me réserve le droit de dire ce que je pense être mon droit et ma part de vérité. Et ma part de vérité, c'est que le droit a été dit. Ma part de vérité, c'est qu'une joute électorale sans le président Ousmane Sonko rendrait illégitime pour cinq ans encore tout autre président qui serait installé. Une joute électorale sans la participation du président Ousmane Sonko voudrait tout simplement dire que le processus électoral est vicié et que le peuple peut se réserver le droit de refuser tout scrutin, tout résultat qui serait issu de ce vote-là si le président Ousmane Sonko n'était pas candidat. J'ai du respect pour nos institutions. Et très sérieusement, très sincèrement, je respecte ma justice. Je sais que le droit sera dit. Je sais que le droit sera dit. Et je sais qu'à la tête de cette institution, sont des Sénégalais comme nous. Les mêmes valeurs de dignité, de job, Les mêmes valeurs de croyants. Et je sais qu'ils pensent à la postérité. Le droit sera dit et Ousmane Sonko sera candidat. Euh, frère camarade mustapha Mbaba girassi ci kàddu yi nga xamni ni biral na ci nasaran ñew ci texte d'investiture bi waye amati solo kàddu yi nga xamni mom la jébbal conseil constitutionnel fatali len li nga xamni modi sen waref ak taxaway bi askanu Senegal, di xaar ci ñom te yaakar nañ ni mënu ñoo rafetal ñom ñi ñew ba ci ciapandaw gi ñu ñaawal te ku ñaawal jamono ñaawal la donc nañu xamni li ñu amé tay Euh, cëru jamono la te seen tour itam jamono da koy téye ba tey ñuy ñaan rek ñuy féete ci wàll gi nga xam rafet wala kàddu rafet ndax loolu lañ leen yéene moom la biral ci ay donc di ñëw rek li mu c'est le symbole de la résistance c'est le symbole de la résilience taxawaayam am na lu mu feeñal ci réew mi gulo de d'étranglement yi nga xam ni dafa poñe réew mi ba tax souvent ñuy dund ci wàllu ci guta taxawaay woowee kat moom la àndoon ak ay ndawam ay jigéen ak i góor ba tey yàlla dogal ñu jaay leen doole téye leen ci kaso bi tey di bés bi nga xam ni mooy mujj ci at mi di 31 décembre 2023 suñu xel ak suñu xalaat di dem ci ñi nga xam ni ñoo sekkoon liggéey bi te nekk ci kaso yi ah ñu amal leen taxawaay amal leen euh, takk suñu ndigg pour que lii ñuy sumb euh, incha allah le vingt cinq février deux mille vingt quatre ñu am ci ndam ba ñu mën a génn dellu ci seen i njaboot donc loolu la ñuy leen di wax ñu téye mu dëgër te xam ne ñu ngi ñëw incha allah euh, yàlla dafa ñu ndam ñu génn leen ci fi ñu nekk. donc ñuy continuer programme bi jox ki nga xam ne moo di kàddu ci. kàllaama anglais xaw ma nag nuñ koy ndax nasaraan la wala déet euh, donc dafa am solo li tax ñu koy def euh, ci anglais ndax yàggul ci jamono yii fan yi ñu génn fële ci états uni dafa am ñaari sénateur yoo xamante ni dañu bind kayit gu am solo yóbbu ko ci sénat bi wax ci jalgat yi am ci réewum Sénégal ni ñuy foowee àq ak yelleef ni ñuy xañee ñi nga xam ni ñoo sëkk géopolitique bi wala ak acteur de la société civile ni leen di jaayee doole di leen xañ euh, seen taxawaay gi ñu war a am te ñun itam ñu bokk ci ndax looloo waral tey ji jaañu doole xañ suñu ak ak moo ñu indi tey ci ñu mën a euh, defee cérémonie d'investiture bi ci anam bi donc looloo tax souvent ñuy def kàddu yi ci anglais ndax àdduna bi yépp yàlla dafa dogal ku nangoo ku nangu ku bëgg ku bëggul àdduna bi yépp ci Sénégal guddi yu ñu toll nii wala turu Ousmane Sonko déglu donc jox suñu frère ngir mu ñëw euh, texte d'investiture bi ci anglais. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Uh, I'm really glad and honored to be given the opportunity uh, to address the Senegalese community and the international community, as uh, the MC said. Uh, today, we are in front of a great situation. We are going to the inauguration of the greatest candidate of Senegal for next elections. and that candidate is named Mr. Usman Sonko. Ladies and gentlemen, members of the coalition, dear guests, dear fellow citizens, dear patriots, we members of the coalition Sonko President 2024 have the honor to bear today the inauguration of President Usmán Sonko as the fifth president of Senegal in 2024. if you fully measure the scope of the stand, it must be acknowledged that the symbolic load is quite strong but above all historical. We must assume the task of investing a giant, a worthy son of Senegal, a great convicted patriot, a symbol of the awakening and flight of the African phoenix, I appoint Mr. Usman Sonko. We would like to do so with strength loyalty, honesty, sincerity, but above all, by duty of loyalty in the patriotic struggle for standing better and prosperous Senegal. we also do so in memory of all the soldiers of patriotism, democracy, and freedom, to all those people who have fallen on the field of honor, I mean the 1,000 people or more who are in the prisons and the 60 or 80 people who died because of their country and who are fighting so that we have democracy in Senegal and that we have peace in Senegal and that we have uh, development in Senegal and those people who want to appoint the Usman Sonko as their candidate and to prepare to elect him on the 25th of February 2022. You're right, Greece. Those people who died, those people who are in prisons, they have a single song, Free Usman Sonko. Free Usman Sonko. Free Sen Sonko. And Free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Thank you. To their families, those people who died and who are in prison, to their parents, we convey the thoughts, our prayers, and our faithfulness. The only real gift we can give them is to free Senegal from the yoke of autocrats like President Macky Sall and his team, authoritarians to build a rule of law that respects freedoms and guarantees good democratic governance. Considering that the official appointment of a candidate by a coalition of political parties constitutes a democratic tool, subject to the simple reading of the provision of the Constitution and the Electoral Code, considering that the pursuant to, that pursuant to Articles 4 and 29 of the Constitution and L121 of the Electoral Code the official nomination of a candidate in the presidential election by a coalition of political parties is one of the prior and necessary options for holding the presidency of the republic. Considering that the choice of the procedure of inauguration of President Usman Sonko is based on a technique of legitimacy and legality at a time of discredit of many political formations, and even more broadly of political uh, action in our country, considering that President Usman Sonko uh, and his technique has a certain specificity, but also and above all, a genuine dose of originality in the Senegalese political landscape. Considering that the initiation technique of President Usman Sonko is an attentive and solemn mark of a democratic current, considering that this technique of investing the candidate of President Usman Sonko coalition, Usman Sonko has its origin in the investing process carried out by the Patriots on 13 July 2023, and a total of 1,606 votes validly cast by all voters at the level of the different departments, coordinators, and the diaspora, they have decided to present and to introduce Usman Sonko as the candidate for the next election. Now, considering that the results achieved exceed all expectations, with all votes in favor of, uh, of candidate Usman Sonko coronating the unavoidable success of the patriot leader, Considering at the end that it is therefore appropriate to note that the candidacy of President Usman Sonko has finally received common and massive support in Senegal head and the political head landscape, bearing in mind that the 29 political parties and associations present that the list has already been given by my predecessors. I don't need to come back on them. Formally established the President uh, Sonko 2024 uh, coalition, considering that Usman Sonko has been designated as the candidate of the said coalition. Article 1. Mr. Usman Sonko, born on 15 July 1974 in Chess, exclusively of Senegalese nationality, enjoying his full civil and political rights, is officially invested and declared candidate of the Sanko President Coalition 2004 in the presidential election of 25 February 2024. The overwhelming majority of Senegalese people want Usmán Sonko to be candidate for next elections. Right. And they want to elect Usmán Sonko the fifth president of Senegal Please, dear judges, don't disappoint your fellow citizens and validate Sonko's candidacy and let, please, and let, please, let Senegalese people decide who is going to be the next president of Senegal. Now, the last word I will say to Senegalese people, please go and withdraw your voting cards. Yes and get ready to elect President Usman Sonko on 25 February 2024. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Adam, for your kind, for your kind and uh, bright words toward the uh, toward the uh, President Usman Sonko, and I hope that the international community will get your words. So, thank you very much. <laughs> donc uh, jërëjëf dam, kàddu yi am na solo ñu continuer di wéyal euh, li nga xam ne moo di euh, jotaay bi fa yéene jox kàddu ndax euh, pare nañ ci li nga xam ne moo di texte yi di investir président Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko président 2024 donc ñu fas yéene jeexalee li nga xam ni moo di kàddu ki nga xam ne moom la ñu tabb mu jël ko baaxe ko jotaay bi itam baaxe ko askanu Sénégal ñi nga xamné ñu ngi sétane faré ci réew mi wala bitim réew kaddu yoy nak ki koy jottali mu di euh, Birame honorable député maire Birame Souleye Diop nek ex ex candidat donc ñu koy jox kaddu mu jottali kaddu président Ousmane Sonko. Bonsoir à tout le monde, chers citoyens, chers patriotes qui nous suivez aujourd'hui 31 décembre 2023. Je pense que le résumé de la cérémonie aurait pu être fait en deux mots. En deux mots, parce que si je dis investir et investiture. Investir parce qu'il s'agit de mettre toute son énergie dans une action, dans une activité, dans un projet. Ousmane Sonko a passé les dix dernières années de sa vie avec ceux qui ont cru en lui à s'investir dans cette mission pour redorer le blason du peuple et faire du citoyen sénégalais un homme fier qui irradie le développement du pays et du monde. Le clou de cette mission a toujours été notre ambition de participer à un choix définitif. Il s'agit du choix qui va intervenir le 25 février 2024 et pour lequel le second terme intervient, c'est l'investiture qui, nous le savons tous, est l'acte par lequel un parti ou une coalition de partis désigne officiellement un candidat à une fonction élective. Et c'est lui que 26, 29 organisations ont choisi pour y être. Il faut dire que nous tenons ici, là et maintenant, à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble du peuple sénégalais qui a massivement soutenu le président Ousmane Sonko pour toutes les épreuves qu'il a traversées injustement, détenues aujourd'hui par le régime de Macky Sall. Alors que nous l'investissons officiellement aujourd'hui et que nous lançons les activités de la coalition Sonko Présent 2024, nous ne pouvons oublier, comme cela a été dit et répété, les militants et sympathisants assassinés ou arbitrairement détenus dans les géoles du tyran. Face à un régime dictatorial qui a tenté d'entraver toutes les activités politiques qui ont été faites au nom du président Ousmane Sonko ou de la coalition ou de ceux qui ont voulu travailler avec lui, nous entendons aujourd'hui répondre de la manière la plus démocratique possible. Chers militants, chers sympathisants, sachez-le, la candidature du président Ousmane Sonko ne souffre d'aucun manquement et d'aucun doute. Ayez foi, ayez confiance. Son dossier est un dossier béton. Et c'est l'occasion pour nous, en son nom, de féliciter tous les hommes et femmes qui ont travaillé pendant dix ans et qui ont travaillé ces derniers jours, ces derniers mois, pour nous offrir une candidature aussi sérieuse. Et pour défendre cette candidature, il nous est important de faire un rappel que nous pensons utile. Il s'agit encore de trois choses. Il s'agit de l'humain, il s'agit du temps et de la responsabilité. L'humain, parce que c'est un homme qui choisit, c'est un homme qui travaille. Il a beau s'appeler citoyen, il a beau s'appeler patriote, il a beau s'appeler républicain, il a beau simplement s'appeler fonctionnaire ou juge ou magistrat, il n'est simplement qu'un humain. Ousmane Sonko a assumé son humanité en apportant un projet. Il s'est battu pendant dix ans pour qu'on connaisse la réalité de ce projet-là. Aujourd'hui, les Sénégalais se sont, là, se sont appropriés du projet. Aujourd'hui, il y a deux autres humains que je voudrais appeler pour le, au nom et pour le compte du président Ousmane Sonko. Le premier, c'est le militant, c'est le citoyen. C'est simplement le Sénégalais qui a envie que le Sénégal change il y a deux mots qui lui sont destinés. Mais l'autre humain, c'est celui qui tranche, le juge. On a parlé du juge. Je rappelle que les symboles de la justice, c'est une femme, le visage voilé, portant un sabre et une balance. Pour quelle raison Une femme, pour, pour tout ce qu'elle représente en termes de justice, en termes d'équité, en termes d'amour de son peuple. pourquoi le foulard sur les yeux pour simplement dire son impartialité pourquoi la balance c'est le symbole qui renvoie à cet équilibre équilibre que l'on peut appeler parfois chez les mathématiciens équivalence et la dernière chose le dernier symbole c'est le sabre pourquoi le sabre parce qu'il faut trancher sans état d'âme Il ne regardera pas le plus fort. Il ne regardera pas le visage du plus faible. Il dira la justice. Et voilà pourquoi je comprends l'interpellation du doyen Girassi, l'interpellation de Dame et de El Ndiaye en l'endroit du Conseil constitutionnel. Dites la justice. Parce que vous êtes humain. Vous avez une existence répartie dans un temps. Voilà pourquoi j'avais dit humain, temps et responsabilité. Et la responsabilité nous renvoie à quoi La responsabilité nous renvoie au verbe répondre. On répond de soi, on répond de ses actes, on répond de ce qui nous est confié, mais on répond également de ses manquements. On répond devant le peuple, mais on répond également devant Dieu. Responsabilité. Et je ne suis pas seulement en train de parler du juge, parce que Ousmane Sonko a un temps de vie. Le citoyen a un temps de vie. Le juge a un temps de vie. Parce que celui qui est au Conseil constitutionnel demain n'y sera pas après-demain. Il y a un temps où il faut assumer une responsabilité. Et au peuple, il a un temps pour assumer sa responsabilité. Et de la responsabilité du peuple, dans le temps qui est défini, dans le temps qui est défini, il s'agit aujourd'hui, dans les quelques 50 jours qui nous restent, d'aller prendre les cartes lecteurs. Il s'agit dans le temps qui nous reste de savoir que nous voulons changer. Mais quand même, nous sommes humains. Il y a un temps, il y a une responsabilité, mais il y a quelqu'un qui veut continuer son temps. Même si ce n'est pas lui, c'est un des tiens qui veut continuer le temps. Il veut hypnotiser notre temps, il veut kidnapper notre temps et ne jamais assumer sa responsabilité devant l'histoire ne jamais assumer sa responsabilité devant la justice, mais ne jamais assumer sa responsabilité devant Dieu. Il se trompe tout de suite, il faut qu'il le sache, mais quand même, on ne va pas lui faciliter la tâche. Et pour ne pas lui faciliter la tâche, il nous faut surveiller le vote. Allez-y, chercher le personnel électoral. Il qu'il n'y ait pas un bureau de vote où nous n'avons pas des yeux et des oreilles. Qu'il n'y ait pas un centre de vote où nous n'avons pas des yeux et des oreilles. Parce que tout ce qui se passe dans l'angle mort de nos yeux, ça se fait contre nous. Il ne faut pas que pour ces élections-là, qu'il y ait un angle mort. Je parle de la région nord, je parle de la région est, je parle de la région centre, mais il ne faut pas qu'il y ait d'angle mort. On nous a interdit d'investir Ousmane Sonko à Capes, comme il l'avait fait au 15 juillet en pensant que c'était fini. Mais il ne sait pas, lui, Macky Sall, que nous avons blanchi sous la harnais. Les coups de boutoir, les armes à feu, les grenades lacrymogènes, le sang de nos frères qui tombent que nous voyons du matin au soir. La prison ne nous décourage pas. Nous, quand on baisse les pieds, c'est pour marcher encore. Quand on tombe, c'est pour nous relever. Nous ne tomberons jamais. Et la victoire est proche, proche. Mais nous ne sommes pas prétentieux. Et parce que nous ne sommes pas prétentieux, nous avons encore choisi de lui dire Vous nous avez interdit d'avoir accès au Fun City, mais ici on, sera au Fun. Et on sera au Fun pour investir notre candidat, le candidat de Jomaï, le candidat de Abbas, le candidat de Guy, le candidat de El le candidat, le candidat, le candidat, notre candidat tout simplement. Mais écoutez, nous n'allons pas terminer sans lancer le premier élément de notre plan d'action. Parce qu'en nous interdisant de faire l'investissement à CAPES, en nous suivant pour fermer le Fun City, mais ils ne savent pas que nous, le territoire, pour nous, il n'est pas susceptible de limites. Notre détermination n'est pas susceptible de limites il n'est pas encadré. On ne peut pas nous fixer de limites. Et parce qu'on ne peut pas nous fixer de limites, nous allons lancer aujourd'hui, à 20h, un concert de casserole. Nous, allons nous faire entendre par Ousmane Sonko de sa cellule. Nous allons nous faire entendre par Bassirou Diomaye de sa cellule. Nous allons nous faire entendre de la cellule de tous les détenus politiques. Il faut que Macky Sall entende du palais de la République notre concert de casserole. Parce que notre concert de casserole, c'est pour dire, pour nous, notre détermination n'a pas de limite. Pour nous, Ousmane Sonko est le choix du peuple. Et nous l'avons dit, une élection présidentielle dans ce pays-ci sans Ousmane Sonko n'est pas une élection présidentielle. Et la coalition Sonko président a décidé par son action de transformer coalition Sonko président en président Sonko la solution merci beaucoup. mbokki Sénégal Mbokki ni ñuy mbokki yi wax aji bëgg sa réew ñun ñoo fi daje tay di teunk kàddu yi nga xamni bi mo fi ngir xamal jom ak fit di di roy ci suñu waa ji ñuy wax Ousmane Sonko ñoo fi daje ngir tey tabb ko def ko candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm seetlu bi nag daj na mat na pexey nguur mooy Ousmane Sonko du fi doonee candidat waaye li ñuy laajte di ko laaj bépp sénégalais mooy ndax dinañ bàyyi nguur ndax dinañ bàyyi Macky Sall mu ëpp ñu fulla fayda xel jom ak fit pour tok fële ne Ousmane Sonko du nek candidat ñun fukki at ñi yar di yafal projet fukki at ñu ngemb nit ba tay ci cappaandaw gi mun nañu ala mukk du fi amé ndax dinañ nangul mel nonu gëm naani yalla sakku ci réew mi patriote buy nangu lol di am waye li nak bu ñu bëggee jeexital biñ ci xaar mu am manam ñu wëlbati turu coalition sonko président def ko président sonko ci février 2024 dafa am ay taxaway yu muy laaj benn taxaway bi ci jiitu mooy man mi sama xol di bas basé ci ne bëgg naa Ousmane Sonko dama yor carte électeur naa ko denc bu wóor waaye ki nga xam ne bi tey dama ko denc sama carte électeur ndax dama inscrit mu jël ko tegal ma ko ci waxande ci préfecture wala fu ko mënti denc ci Sénégal naa dem ji waxande woowa jël sama carte électeur ngar dajjoo ko xaar bis ba ma jox ko Ousmane Sonko moo tax ñuy wax yeen ñi nga xamni sen carte électeur ñi ngi nelaw ci préfecture ak sous préfecture na ngeen am ful ju day ni ngeen wax Ousmane Sonko ne ko fe mu nek palais bi moy place biñ ko bëgg a teg te lii tax moy ku nek cotisé cotisation nak moy ku ne téye sa carte te wajal muy ben ñaarel bi moy saytu élection saytu élection ñun ñoo fexé ba matal ko likoy matal moy képp ku nek ci ñun japp ni bureau de vote ba nga ne ya fa wara doon suñu bët yaa fa war doon suñu nopp ndax foo nekkul ñu def fa loo xam ne lii ëllëg du doon di lay jariñ maanaam fu ñu nekkul ñu sàcc fa élection yi wax ji dañ koy gàttal te mu leer fu ñu nekkul fu ñu xoolul fu ñu amul représentant fa foofu la ñuy sàcce yi lii may wax nag du lépp lu ñu dund la li ci des gàttal suñuy kàddu rek mooy ñu wax sénégalais yi ne leen ñun dañoo waxoon ni dañuy investir Ousmane Sonko ñun ñi ñëpp fee ca ACAPES Nous sommes le département nous ñun coalition bi suñu militants nous sommes sympathisants ku ci nekk dagg sa pour ne nous jii ci bis da ngay taxaw investir Ousmane Sonko ñu ne Nous alam mukk du fi ñu la bàyyi nañu la seen jël leen am sañ-sañu ci de du moomeelu Nous moomeelu ñu fay ñu fekk ñu fa ak ay nañu alam mukk du fi ni ay te kat ñun ñooy doomi réew te nangu ni doomi réew mooy tabax réew te noom nangu ni doxandéem du tabax réew pas-pas boobu nag moo tax ñu ne danañ danañ leen ko bàyyee waaye tey 31 décembre danañu daje pour investir Ousmane Sonko mooy waral suñu toogaay bii mais bu noppee lii li ñuy laaj mooy ñu wax ni lii di xew benn ci li ñu bëgg xañ danañ leen wan ni ñun suñu pas-pas rom na fépp fo tak ñom sen pas-pas ngir yakal ñu ñun suñu pas-pas pour défar Sénégal rom na len fanwer dem lolu motax ñi wax ñepp na len 20h ci tay ji nak ku nek kër yëpp ñu kenn depp ci waye ku nek am nga sañ-sañu jël su ko wëru ci concert de casserole lañuy laaj bëgg nak mu yegg fé ci Ousmane Sonko bëgg nañu mu yegg ci Bassirou Jomay Diakhar Fay bëgg nañu mbokk yi nañ ko fëgg fëgg fëgg ba lalu bépp détenu riir mais yemoo ca loola nañ ko fëgg fëgg fëgg ba kenn du dégg kii fii jógee di dem ñu fas yéene koo diral cin kenn du dégg li muy wax ndax soxla ñoo tàggoog moom salaamaaleykum wa rahmatullah Birame Souleye Diop kaddu amna solo fatali rek plan d'action bi ci 31 décembre bi ku ñu xagn suñu solos mbir ñu xagn la sa solos mbir donc nak na na ku beru kaw di yi riir na casserole yi riir bañ aduna ñepp dégg ko ñu xamni xam ni seul message à la nation waaw c'est le seul message à la nation en attendant Euh, sénégalais yi dem jëli seen carte ndax lu am solo la ci li ñuy def li ñuy jeexalee xew-xew bi ñu ngi ci càppandaw gi mooy euh, euh, écharpe yi nga xam ni moom lañu ñu fas yéene woo ñi nga xam ni ñooy membre te bokk ci coalition Sonko président 2024 ñu fas yéene ko def ànd ceeg Fatima Meng ak ñi nga xam ni ñoo fi teew te bokk ci coalition bi ñu fas yéene leen woo kenn par kenn ñu ñëw fii jox leen ko Nous commencer avec euh, euh, suñu frère camarade M. Moustapha Mbaba Girassi Je mi nga xam ni euh, honorable député Guimaru Sanya. Wow, M. monsieur Mamadou Lamine djante moom mouvement pour une citoyenneté engagée en ndawle Oh, monsieur Ousseynou Faye M2R <laughs> donc mon su d'une dina agsi woo monsieur Ousmane Tchouf, mon mi jiite APJS woo suñu madame Maymouna Bousso moom mi jiite force citoyenne waaw suñu frère monsieur Ousseynou Faye m ñu jox ko mu ñëw taxaw ma jëy Mbóoj mi jiite yoonu askan wi doyen ma jëy Mbóoj nekk mag mu am solo ci suñu liggéey di ko ñaanal yàlla gudd fan woo monsieur euh, Mohamed, docteur Mohamed Sall, MRDS. camarades suñu camarade euh, Damboj coalition le peuple Nous avons monsieur Ali Gay moom mi nga Front National ki ci topp di sëriñ Gueye moom mi jiite parti PAS moo ñu nar jox PAS bi ñuy yóbbu ca ndam li 2024 incha allah woo nag ki nga xam ne ku ñu ràññee la muy tonton Ayib ni ko xale yi di waxee ci réseaux sociaux yi mandataire du candidat président Sonko <laughs> ñu ñëw ci ex yi ñu tuddee ex yi les ex candidats

ñii nga xam ni ñoo fi jot a teew ci euh, euh, bokk euh, ci coalition bi ak niñ ko limee sànq nekk na ñaar fukk ak juróom-ñeent parti kuréel yu ko bokk te incha allah am nañ yaakaar ni coalition bi dina gën a yaatu ndax gaa yaa ngi jege si di fugg di fëgg bunt yi ndax ndamu lii di am en 2024 incha allah sénégalais yépp ci ko bëgg a bokk rawatina parti yeeg mouvement citoyen yeeg mouvement associatif yi donc fas yéene jeexal jotaay bi di di sant ñëpp. Seydou Guissé sàll moom mi jiite parti Wareef mi donc fii lañ ko yemale mbokk yi fase ni ko tëj ak la photo waaw woo nañ président Sonko jox nañ ko écharpe moom itam. chaise bii moo ko jëmmal. di ñaan yàlla mu génn gaaw ñëw toog ci en tant que cinquième président de la république bu Sénégal fi ñuy tëjee rek mooy benn vidéo boo xamante ni dinañ ko euh, wane mu jëmaat rek ci président Ousmane Sonko ak taxawaayam ak li nga xam ni euh, mooy géewu politique bi euh, bu ñu ci noppee dinañ ñëw def li nga xam ne moo di photo famille bi di leen fàttali nag naka sorool yi riir a riir bu baax a baax Conviction forte que malgré tout, il ne tient qu'à nous de briser ce cycle d'échecs et de déceptions. Car les solutions sont bien en nous. Mais il faut s'y atteler dès maintenant. Nous avons déjà perdu trop de temps et le monde ne nous attend pas.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 parce que ma conviction, elle est nette, que personne n'est mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024. Je ne suis pas un utopiste, je ne suis pas un nombriliste, je suis quelqu'un de très posé sur ces questions. En 2019, quand les gens sont venus me voir pour me dire qu'on va gagner, je leur ai dit que c'est possible. Parce que, euh, comme on dit, les desseins de Dieu sont insondables. Mais si je m'en fie simplement aux aspects factuels et pratiques, je crois qu'il nous faut nous fixer comme objectif de bien figurer, de marquer notre terrain, de montrer que nous sommes une force sur laquelle il faut compter, plus que de penser qu'on va gagner cette élection. Autant j'étais très euh, prudent pour 2019, autant je le dis aujourd'hui. Et je le dis avec toute l'objectivité du monde, il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce que ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Dans 2024 tant gi ñu war a tànn ñaar ndax dañuy bayyi suñu askan continuer nek askan wo xam dañ koy yor ci lépp alal goo xam ne doo ko dugal fi mu war a dugg ci jaay alalu réew mi ci jamono jooju ci noot doomu aadama yi ci duma reye ak tëjaate ci yaatal ay programme yoo xam ne dëppoowul ak suñuy gëm-gëm ci biir réew mi ak ci jaay pasar pasare lépp loo xam ne sénégalais waroon ci mun am yaakaar wara mu amal leen njëriñ wala ndax dañuy tànn loo xam ne day lalu ci souveraineté ak patriotisme mooy fexe ba téye suñu réew li nga xam ne yàlla jox nañu ko ci alal te macha allah mu bari loolu ñu teel ko suñu bopp yóbbu sénégalais yi ci liggéey ndax liggéey mooy defar réew kenn ku ne xam ni sacrifice la jële fi ger ba kenn dootul sañ saña saña jël dërëm bu mu moomul ci askanu réew mi waaye dërëm gu ne rek ñu dugal ko fañ ko war a dugal xam lan mooy priorité ñaari model yooyu rek moo fi ne ci loolu lañu war a tànnee moo tax rendez-vous boobu ci rendez-vous yi gën am solo ci histoire Sénégal la bokk buñ ko ratee rek dañu xam ni 50 ans yi di ñëw wala lu ko ëpp dinañu continuer nekk ci jafe-jafe ak ci toroxtànge ak ci nooteel kenn ku ne di ko jooy fa nga koy jooyee te kenn du am saafara moo tax yow militant bi yow militant bi yow mi di sympathisant ak sympathisante yow mi citoyen bo xamné milité wo fenn waaye am nga yeg yeg ndax nak Sénégal wax ji na bëri na trop waye sympathisant yi ñoo ëpp militant yi de ku fi falu rek sympathisant mo la fal ndax mënu ñu dem jënd carte ci parti politique motax ñepp la waxal ku fi nekk ku ne diaspora fatil leen ni rendez-vous bi rendez-vous bu historique la rendez-vous bo xamné momat suñu bop la te mu dépassé Sénégal tey muy muy combat boo xam ne combat africain la bu soobee yàlla candidat la ñuy doon